kii euh, de la jeunesse nu mu corruption corruption la corruption la jeunesse xam nga Macky corruption à la justice. dañu waxante dëgg. dañu mhm. mhm. waxante dëgg benn yoon. Mhm, ñun amuñu benn fu ñuy far wala dara. mais dëgg la ñuy àtte. ay daan xasoo Ousmane Sonko xanaa di xas sunu président bu sell bi Macky Sall naan dafa jënd ay juge xam nga musuma saaga sa ndey. musuma saaga sa ndey. musuma laa wax lu ñaaw mais Macky Sall moom boo duggee ci moom léegi ma commencé saaga sa ndey di saaga sa baay dugg ci biir njaago yi lu xarti ci xam nga yow bu ci njaago bu kat sa ndey nga njaago bu bon nga xam nga njaago yi moom moom ay doomu xaj ay dëmm lan dañuy naat deret njaago yee gën a doxaan seen ndey ci lu yàlla sàkk du ñëpp nag mais yow ci njaago yu ubbi seen lëfal ndey yi ci nga bokk yow dib du du ngaaka beleen de sama xarit la dama ko woo téléphone waxtaan nag moom daa juub def erreur ngaaka du defati loolu moom sama waay la quoi du ma ko dal mais yow laay doxaan sa ndey yow dew dib du gis yow laay kat sa ndey ngaaka ma wax dëgg yàlla sax def na ma naa la jégal yow billaahi wallaay wataalaay ak ba suur sama ndey billaahi lii la ma ngaaka wax mu ne moom bu ma la wax dara barki Serigne Babacar si naala la bàyyi billaahi ku dee ak sama mel gaaka bele ne maa ko woo téléphone dafa def erreur juum billahi billahi daf ma dib bu ko wax dara bàyyi ko barki alxuraanul karimi ak ma suul sama ndey loolu la ma gaaka bele da wax billahi ba ma koy mbalak naan ko yéen ñaar kat ngeen juboo barki sëriñ Babacar Si wóor na yàlla dib mayul sa bopp waay bugguma laa wax lu ñaaw barki Serigne Babacar Si bugguma laa xas bugguma laa saaga bugguma wax sa yaay lu ñaaw bugguma wax sa tarix jaago yi lu ñaaw bugguma wax te dara lu ñaaw mayul sa bopp bu ngeen dee wax dëgg fii amuleen ku ngeen mën a wax dëgg ku du Ousmane Sonko usmaan Sonko bi bàyyi ñaari jabaram dem maasa wëññi kat ay aji saar ba koy bi di taq day ay xale yu ndaw di ko yem mu bàyyi jabaram bàyyi doomam dem maase wujji simmeeku def taatu neen joxe boppam ñu koy maase loolu la yàlla bëgg ci dëkk yàlla nee na laa taqrabu zinaa bul laal bul jege moom moom moom weesu na xool de yàlla nee na xool dafa araam mais Ousmane Sonko weesu na xool dafa kat ba koy bi tax ay day kon bu ngeen dee wax dëgg di ngeen naan ko Ousmane Sonko fi nga dem du sa place waroo woon a dem foofu lu la fa dal yaa ko yóbbee sa bopp parce que yaa kat ci woon aji saar bàyyi sa ñaari jabar sa kër loolu moom mooy wax dëgg mais bu leen jël affaire bi di ko xëpp Macky Sall Macky Sall demul ci fu ñuy maase wo Macky Sall bokkul ci ci maase Macky Sall doxul ci yëfu jaaxaan liggéey la xam ak defar réew mi makki du nitu jaaxaan bu ma yëngal nag boo ma yëngalee barki Serigne Babacar Sy bu ma la jàppee dim di nga xam ne lépp dëgg la avertissement laa lay jox rek waxaguma la dara bugguma laa wax lu ñaaw sa yii ngay def génne ci Macky Sall Macky du seen moroom du seen moroom bu bàyyi daanaan la ci réew mi du def lu bon de justice yërul tribunal attewul ñiy atte ngeen di waxal ak Ousmane Sonko bi kat foofu du place buru fa a dem yow nga ne da ngaa bëgg a nekk président da nga bëgg a jiite mi di dem fu ay caga di ferekante ba leen di kat sa di tax day wax ko dëgg foofu du place am yàlla laa taqara buusi